ami internet comme vous le voyez ñi ngi fi nga xamante ni moom mooy stade Ngalandou Diouf bu Rufisque fi nga xamante ni fi la e amee démb ñu ñëwoon nag pour def état des lieux euh, constater li nga xamante moom mooy dégâts bi ñu ñëwee fekk nañ fi suñu papa euh, suñu kilifa nekkoon ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo teewoon ci euh, bii lay événement bi amoon muy football quart de finale ou demi-finale entre Thiawlène ak Guive donc ñu bàyyi ko rek mu nuyoo yéen mbokk internet yi bala ñoo dugg ci tontu yeeg laaj salaamaaleykum tudd monsieur Mbaye Diong euh, je suis un natif de Rufisque je suis né et j'ai grandi dans cette ville fekk fii événement sportif bu ma sa am euh, di mitutlu li xew parce que c'est passé réellement c'est une déception pour tout Rufisque gàcce la ñun Rufisquois mérité wu ñu lii parce que tous les grands talents du football Rufisquois fii lañ jógee toog nañu fii pendant sept ans nous n'avons pas joué dans ce stade Ngalandou Diouf des bonnes volontés de grands sportifs jël investir de l'argent pour que remettre en œuvre ce bijou aujourd'hui ce qui s'est passé réellement tout le monde l'a vu hier c'est au cours de la rencontre entre l'ASC Guif et l'équipe de Chelsea moom ay échauffourées yoo xam ne yii kenn xamul fu mu jógee mais auparavant vers 14h30 15h nous avons aperçu en ville que ñaari supporters yi xaw nañu daje ba def ay jet de ba yàq quelque véhicules booba temps alerte bi am na pour que nit ñi jël seen responsabilité maanaam la zone et l'ODCAV pour que ñu renvoyer marché bi jël jëlaat d'autres dispositions mais malheureusement match bi pour des dispositions sécuritaires d'après leur réaction nee na wax nañu ñoom ñu ne mën nañ couvrir match bi ils ont joué la première mi amul benn incident malgré que situation bi xawoon na tàng en deuxième mi-temps nous avons assisté vraiment que benn penalty bu am boo xam ne visiblement c'était un penalty l'arbitre a pris ses responsabilités ñu teg ko dóor ko mu dugg ba booba temps dara amul alors on a vu après que l'équipe adverse qui a encaissé ce but ses supporters commençaient à réagir avec des jets de pierre alors bi ñu commencé jets de pierre quelques-uns commencé tëb service d'ordre bi commencé réagir alors foofu la affaire yi commencé alors que nag finalement kenn mënatul kenn y a eu beaucoup de blessés malheureusement une perte de vie humaine de yu fa am donc euh, il y a des blessés qui sont à l'hôpital entre Youssou Mbargane CTO euh, et bu guddi gi nit ñaa ngi si boobu situation pour revenir daal vraiment que ne événement regrettable la tout ça c'est aussi porter préjudice au football rufisquois comme Tenguet Football Club qui reçoit dans ce stade, dont le président a beaucoup fait pour que stade bi nekkaat ci euh, stade neuf maintenant on va recevoir le club de Rufisque qui a redoré, redoré le football rufisquois qui a été championne deux fois l'année dernière qui a fait une bonne représentation en Coupe d'Afrique des clubs champions aujourd'hui on va reprendre à zéro ce qui est regrettable il faut que le mouvement navétane prenne ses responsabilités, situer les responsabilités, identifier les personnes fautives, prendre des sanctions extrêmes à l'encontre de cet ASC pour que, pour que demain, ces problèmes ne se reproduiront plus. so si loolu laa amoon lu may wax je vous remercie. waaw est-ce que mën nañu ñëwaat rek tuuti rek ci li nga xamante ni moom mooy doxalinu ndaw ñi jamono ji ñu toll ndax inconscience bi ëpp na ci xale yi ndax ku gis lii euh, ci biir stade bi ak ci biir vestiaire yi ni ko gone yi def yàq infrastructure bu mel nii comme ni nga ko waxee sànq nga xamante ni da doon joué ci euh, euh, faveur faveuru FC Tëngéej ak yu ni mel loolu yow en tant que parent d'abord lan nga ñu mën a wax ci gone yi li ñu jug te jamono ji nii muy wàllum agression yeeg li nga xamante ni mooy merci gis nga man miy wax ak yow. Euh, je suis un ancien homme de loi. J'ai fait 34 ans à la police. Euh, les Rufusquois me connaissent très bien. Euh, je suis dans le milieu sportif, président ASC là, pendant 15 ans, en 2017 là. Malgré ça, j'encadre les jeunes. Aujourd'hui, c'est le mal sénégalais. Ce qui s'est passé au combat, avant-hier, entre Papa Sow et Sita, on l'a vu, il y a eu des agressions des gens qui étaient à bord des motos en train d'agresser des gens avec des armes blanches. Nous, il y avait un show ici avec Wali. Le lendemain à 5h, du matin, les gens du Ligue, nous di côté du Nangu, que c'est portable. Qu'est-ce qui se passe dans, pour cette jeunesse sénégalaise, réellement Le marché c'est où Les parents sont entièrement responsables que chacun parmi nous prenne ses responsabilité toogoon ak si waa kër toog waxtaan ak moom yeddaat say doom tere leen ci yenn actes yoo xam ne wuratul am yooyu suñ ko defee dina dindi mais tant que aussi les gens ne prennent pas leur responsabilité ci kaw benn ci wàllu bu nit defee dara nga dénoncé ko nit ñi di bàyyi di raay raay bu ñu suspendre te équipe ñu bàyyi ko mu toog lañ ko suspendre mais soo suspendre tey équipe pendant cinq ans déwén nga bàyyi ko équipe beneen bu ñëwee danaa li fi amoon daaw bu ñëwee ma dem loolu mooy pousser à cette jeunesse boo xam ne quatre-vingt pour cent suñu ñëw au stade duñ fi nekk ils s'adonnent à la drop dañuy yor ay armes blanches un peu partout un peu ñoo xam ne ñëwuñu sax pour seetaan c'est des intrus yoo xam ne dañ ciy nekk yóbbaale ñi nga xam ne ñii ils ne comprennent pas dem ci des innocents di leen agressé jël seen alal il faut que ñu reprendre li nga xam ne moo fi nekkoon bu njëkk yoon soo defee lu mel nii ñu teg la si yoon atte fi nu war la condamné la pour montrer le bon exemple euh, euh, à la jeunesse c'est ça. sëñ bi mën nañoo xam tur bi ak sant bi. Cheikh Tidiane Gueye. Ah, ginnaaw euh, gis nga stade bi ñoo moom amoon match de nawetaan démb ay supporters nekk fi am ay yenn pro échauffourée maanaam ñuy jàppante ba am ku si génn àdduna am ñu ñu bëri ñu si blessé loolu nan koy jàngate en tant que doomu Tëngéej. non man li ma koy jàngate lenn rek la lu dul dama koy ñaawlu dama koy ñaawlu ba fa ñaawlu yam parce que man mënuma comprendre nga ni da ngay jouer te kenn du ma gagné te yow li ngay ut si moom la sama morom di ut si buñ la gañee nga xeex. malgré ñoom li ñu wax mën na kenn mënu ci sukkandiku quoi parce que ñoom ñoo ñëw joué si yaa ngi dégg yaakaar naa ne am na loo xam ni nit waru ko mën a def yenn incident yi am fii ci stade bi dem ñëw ma woon mais lépp dama koy seetaan sama sama téléphone ba ay nit ñoo xam ne ñu ngi dëkk ba Louga ba Saint-Louis di ko ñaawlu may déggante ak ñoom moo tax ma ñëw tey visiter si euh, am lu ma naxari trop trop trop surtout ma dégg si ay benn mort ay deux morts ah ak ay blessé yoo xam ne gis naa ko sama téléphone ay jigéen yoo xam ne dañuy ñëw am ci ay jafe-jafe nit ñoo xam ne ay doomu aadama lañ bu fekkoon ne respecté aadama dañuy ñëw jouer say moroomu nit ngay taseel jàkkaarlook ñoom nga jouer buñ la gañee nga xam ne dañ la gañe man sama équipe dañ ko gañe fi dañuy dem si jaam ak salaam ah pourquoi pas ñeneen ñi def noonu ah nga jouer yow ñu gañe la nga ni kan waruma gañe te noonu lañ koy jàppee mouvement nawetaan man nawetaan laay dama koy dama koy suivre damay ñëw si si stade bi indi sama équipe wala ma ñëw supporter yeneen équipe seetaan si boog yeneen équipe mais bu fekkee ni dañ ma gagné rek man ni damay xeex pour lan kon kan la ñuy jox coupe bi te pourtant nawetaan li ko taxoon a jóg mooy dañuy jàng élèves dañuy jàng neuf mois. ah six mois euh, trois mois yi ñuy toog di noppalu ko moom moo tax ñu créer nawetaan quoi pour xale yi dindi stress bi nekk seen ki foo affaire yooyu noonu mais bu fekkee ni nawetaan foo moo ko taxoon a jug mu dem ba ay blessé am si ay mort am si nañ ko arrêté gis nga nawetaan bii nii xoolal dañ ko waxul rek mais président zone yi ñoo si kaañu. président zone yi ñoo ciy lekk xaalis bu dul jeex moo tax bëgguñu benn yoon ñu aj nawetaan. dañ ko arrêté nawetaan boo xam ne doo jëlee coupe bi doo am sax. mille lañ lay jox ak maillot yu bon xolo deux cent cinquante mille jox ak maillot yu bon a bon ak benn bal ak xottu coupe. waaw mu jaral leen mu jaral leen lii. mais mais wax li ci gën a garaaw mooy équipe yi ah balaa nawetaan bi di commence bu desee trois mois. bu desee 3 mois dañ leen di commencé seen biir ñoom génne nañ presque lu mat ay cinq millions wala 7 millions. def ko si ay bi si mystique si jënd ay jour mercato nawetaan léegi sa ay mercato ah ñu dem ba leen sponsorisé gis nañ fi ay sponsor yoo xam day ñëw indi si ay millions def ko si nawetaan mais mënuñu civiliser mais Sénégal ba mu daj mënuñu am infrastructure bu baax muy làmb ja lamb dañuy daan sa mbër wala sa mbër di bëre sax yow kontaanoo si moom nga dindi seet di sànni boo ñëwee football si ñu gagné sa équipe ngay yàq yàq stade bi stade bi léegi kenn mënu si football Tëngéej FC mooy mooy représenté Tëngéej fii nii si championnat Sénégal mënuñu entraîné tey fii la ñu war a recevoir bu ñu yàqee stade dañuy loué ji dañuy fay cinquante mille wala lu ko ëpp pour pour mën waa waaw pour obliger dem foofu recevoir te bu ñu recevoir fii waa Tëngéej nañ leen supporter te duñ fay stade bi dara comprendre nga. lan ngay wax ci décision bi ministre bi jël ak kii di décision bi moom xamaguma ci dara. arrêté dañoo arrêté nawetaan Tëngéej définitivement. Ah, nañ ko ko arrêté gum pour le moment nañ ko arrêté gum xam nga nawetaan moom pour arrêter ko définitivement dootul am yombul. parce que jeunes yi dañuy tàggat seen yaram am na ñoo xam ne ci football lañ yaakaar pour tekki comprendre nga am ay jeunes talent lañ mënuñu arrêté completement nawetaan mais nañ ko arrêté pour la moment ba xol yi nga xam ni tàngoon nañ giif. comprendre nga mën nañ ko arrêter ren du amaat ba déwén sax mun na bañ amaat yaa ngi dégg même bu fekkee déwén yàlla dogal na ñu euh, defaraat li ñu war a defaraat yëpp ñu sensibiliser nit ñi ñu nite gis nga jàkka sax damay gis nit ñi ñu si tabax ay jàkka defar ay jàkka yu rafet jàkka yu bëree bëri mais ñi koy jullee bu fekkee nite wuñ fan lañ euh, lan la jàkka jariñ ah noonu la estaat mel bu bu ñu defaree stade bi ba mu rafet tamit lii nii lii noonu la ñu yàggee sonn pour am ko pelouse yi. ah pelouse yi yàgg na fi. président jaune lu ma leer la gis nga président jaune yi ah président jaune yi gis nga nawetaan match bu amee par exemple ay ASC déggoo bu Daaru Rahman bu dee football tey wala ay ASC euh, Ngañ Samb wala ASC Lébu gi bu ñu def football lu mel ne ASC euh, Thiawlène yii ni dañu bari ay supporters macha allah ak nit ñi ñëw di leen seetaan si dañuy dugal si stade bi lu ëpp 2 millions. ci benn journée rek léegi équipe bi bu footballee ba pare dañ koy jox recette am ay ay cent cinquante mille ay deux cent mille maximum deux cent mille mooy recette recette équipe ASC bi li ci des ñu fay si seen ay jeunes yi fay jeunes fay ñi nga xam ne ñoo doon garde si porte yi ay tuuti tuuti onkaaf la xaw ma lim ci am bëriwul président zone yi ñoo ci lekk xaalis bu dul jeex lu ma leer laa la wax président zone yi moo tax keroog bi ASC Deggo di football ak euh, ASC FAC incident yi amoon tax ko garaaw noonu sax mais après président fac bi euh, Malick Ndiaye la xaw ma taxaw fii ne euh, président euh, kii bi li mu wax dara amu si nu mu tudd président comme Tëngéej FC bi li mu wax dara amu si pour rek Babacar Ndiaye pour rek ñu bañ a arrêté nawetaan man yooyu sama nekk si quoi sama nekk si mais lii tax ñoom président jour ñëpp ñu bañ nawetaan ñu arrêté ko ah mooy xaalis biñ ci am te ñoom yii bu amee dañuy daw seen responsabilité amu ci kenn koo xam ni buñ leen laaj duñ wax ah. duñ wax dañuy daw seen responsabilité nañ taxaw ñu wax li fi nekk ñoom ñooy organiser nawetaan yi zone bii nii zone bi daa am président zone dafa am président zone boobu zone bi ki ko ki organiser moom mooy responsabilité bi li fi am yëpp moom mooy bi buñ paree ñu préfet doog a nekk seen kilifa ñoom ñëpp ah ñoom nañu nañu taxaw ñu wax dëgg nit ñi comprendre nga ñu organiser waa sensibiliser nit ñi te ñun ñi nga xam ñooy waa Tëngéej man Tëngéej ji laa juddoo xam naa fi lu bëree bëri ñun ñi nga xam ñu waa ñooy waa Tëngéej ñu nite te xam ni lii suñu alal la lii deful defaluñ ko fi kenn keroog suñ euh, suñu zone bi président bi wax na ko nee na stade bi waa nawetaan ñoo ko moom euh, Tëngéej FC moomu ko mais instant yi moo moo yilif stade bi parce moo fi recevoir moo fi équipe championnat ñun xam nañ Tëngéej FC fu mu jógee B2 la woon 2011 ASC B2 la woon 2011 2011 bi ñu ajee nawetaan la B2 formé def def euh, équipe championnat Tëngéej ko tuddee ko jokkul Jokul FC Jokul FC mu jaay ko bi mu ko jaayee lañ lañ ko def euh, Tëngéej FC pour waa Tëngéej yëpp gis seen bopp ñun xam nañ Tëngéej FC fu mu jógee kon kon Tëngéej FC bu ñu nee moomuñ stade bi dëgg la waaye nag dañ fa am responsabilité yu bëree bari parce que ñoom defaraat nañ ci stade bi lu bëree bari kon tey jii ñoom bu ñu defaraatee yàlla dimbali ñu bañ egg fii dañu war a fonk lu ñu moom suñu alal nit day sàmm alalam. man loolu moo a naqari quoi li ñu def. léegi la jeunesse ñu euh, loolu si parents loolu mi ngi jóge si kër yi si parents yi gis na sa doom ah boo ko dafa bari ay jur sànni Sénégal dafa bari ay jur sànni am ñoo xam amuñu benn responsabilité seen doom sa doom boo xëyee boo xasee seex ak moom am ñoo xam sa seex ñoo seen doom jox ndékki wala bu ñu leen joxee ndékki pare nañ si heure añ boo ñëwul baax na foo añee baax na ngoon. xale yu bari nga leen fiy gis stade fii nii ba minuit match yi léegi match yi surtout euh, euh, premier tour yi minuit la doon jeex léegi xolo xale bu ndaw nga gis ko yow nga am sa doom euh, vingt vingt une heure tëdd si wul war nga xool fan la nekk responsabilité bi si parents yi la dañu yarul suñu doom yi ñu parents yi dañu yarul suñu doom dañu war a suñu doom ñu fexe ba mu nite ba bu demee si yu mel am na ay jour boo xam ne dem seetlu naa ko taala bu nekk Thiawlène jour yi sax doon nañ histoire seen bi mais taala dafa taxaw histoire parce que moom def na si xelam ni man kat dama dama am ay responsabilités yu nekk sama sama kanam moom laa war dem jëli ji. ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na ñoo xam ne fii lañ nekk histoire bi commencé dañoo dem ñibbi man noonu laay def man bu xeex amee sama ASC sax bu doon football wallahi la azimi nañ ma xool nañ ko gis nañ ma wax lu leen neex mais du ma xeexal benn ASC billaahi wallaahi du ma xeex. du su ma mënee arrangé damay arrangé su fekkee sama benn booy leer na ma ne dañ ko nar a gaañ ma récupéré ko yóbbu ko mais du ma xaañ xeer. duma ma du ma yàqal kenn du ma tooñ kenn loolu di yëfu nit quoi pour man.